Amath euh, Bodian maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Amath Bodian nga nekk euh, géologue euh, déjà dañ lay laaj sa xalaat ci crue du fleuve Sénégal bi nga xam ne actuellement mi ngi def ay ravage ca Matam Bakel ak yeneen i village naka nga jàngatee mbir mi déjà. voilà merci beaucoup donc comme niñ ko niñ ko déggandoo ñun ñëpp donc Bakel moom actuellement sonn nañ trop ak Matam parce que ndox bi. dafa taxaw foofu yëpp inondé kër yi moo tax ñi fa dëkk sonn nañ trop ah, mais pour expliquer li waral loolu yëpp donc il faut ñu expliquer les causes maanaam li waral lool comme ni ngeen ko xamee ren jii nii dafa doon euh, nawet boo xam ne taw bi dafa bëri lool lool lool donc boo xoolee ci yeneen dëkk yi comme Soudan dëkk yi nga xam ne musul am inondation ay Soudan ay euh, Dubaï Touba yi amoon na benn inondation bu garaw boo xam ne taw bu bëri moo fa wàccoon donc Soudan bi nga xam ne nii taw bi sax daanul bëri foofu mais ren moom taw na ba am fa inondation boo xam ne ni am na ay moor yu bëri donc Guinée Guinée aussi pareillement loolu moom mooy cause bi donc euh, taw taw bi bëri bi moom moo remplir le fleuve donc fleuve yi dex bi dafa fees tellement donc dafa mujjee déborder ba dugg ci dëkk yi moom mooy cause bi donc beneen cause bi mooy que dëkku yooyu noonu mooy ay ñoom Bakel Kidira Matam dafa manqué euh, ay ay ay infrastructure waaw infrastructure yi mën a gérer loolu noonu donc amu fa voilà beneen cause bi mooy manque de gestion barage waa barage bi barrage de de Manantali donc moom moo war a réguler ndox bi ndox bi jàll ak ndox ndox bi ñuy te ndox bi su bëree dañ ko war a téye di ko bàyyi muy jàll ndànk-ndànk. nga xam ne du créer inondation ci kanam voilà mais ndox bi xam naa dafa bëri trop moo tax mënuñu wootee finalement ñu bàyyi ko mu jàll donc loolu aussi bokk na ci li tax euh, inondation am voilà donc euh, c'est c'est en quelque sorte ça mm-hmm. euh, tey jii kon mën nañu wax ni ndox mu bari mi la est-ce que kon affaire bi dafa nar a continuer d'ici quelques jours wala dafay arrêter actuellement ci sa jàngat parce que am na wax ni sax mbir mi mën na demaat dans des des mois que élection yi sax war nañ ko mën a dàq euh, est-ce que si sa jàngat affaire yi dafay continuer wala dafay arrêter est-ce que dina toucher yeneen région yu dul Matam Bakel wala voilà euh, inondation bi nag nekkul loo xam ne nii day arrêté léegi léegi léegi hmm. parce que nekkul taw boo xam ne dafa taw taw ba créer inondation léegi arrêté na dañuy xaar mu jàll non lii nii benn fleuve boo xam ne dafa débordé la te ndox bi inondé Matam nekkul taw bi wàcc Matam bi taw bi wàcc côté Guinée côté Kédougou Mali côté yooyu noonu ndox boobu noonu yëpp moom moo ñëw pour passer vers l'océan donc moom moo inondé les région de Bakel et de Matam voilà donc actuellement loolu jeexagul ba tey parce que Kédougou moo ngi continuer taw ba tey zone Mali bi moo ngi taw ba tey Guinée moo ngi taw ba tey donc ndox boobu noonu yëpp moo ngi ñëw actuellement donc waa waa Bakel ak ak ak waa Matam nañ xaar ne d'ici quelques jours dina amaat ndox bu bëri bu ñëw parce que barki Dembo Ndiaye taw na fa taw bu métti Kédougou donc ndox boobu noonu yëpp day wàccaat ci Kédougou mais comme ni ma la ko expliqué nii barrage bi mu loolu barrage moom moo ko war a gérer donc bu fekkee ne am na une bonne gestion du barrage la donc dinañ xam ban quantité la ñuy bàyyi mu jàll ak ban quantité la ñuy la pour mën a atténuer cette cette Maintenant, la région de Saint-Louis, Saint-Louis peut-être ñoom ils sont un peu épargnés parce que ñoom am nañ ay infra infrastructures de protection. Mhm. Voilà moo tax ñoom peut-être même bu fekkee dinañ impacté par par par ces par ces inondations. Mmh. mais du du du bëri daal. d'accord waaw contrairement à Bakel ak Matam. Mhm. Euh, léegi ñu ñëwaat un peu si solution yi euh, mbir mi euh, lan moo ko mën a faj fiñ ñu toll nii. voilà solution yi nag lenn la mooy état bi lëkkaloo ak ñiy gérer barrage bi ñu xool exactement nan lañ koy gérer pour mën a teer ndox bi à temps mm-hmm. voilà donc l'autre chose aussi c'est que il faut que mu am ay système d'alerte maanaam ay ay ay infrastructure yoo xam ne ñoom ñooy prédire ce qui doit se produire fii ak ñaar wala ñett fan wala fii ak une semaine bu ko defee ñu mën a informer village yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a subir inondation ne leen ah préparé wu leen semaine prochaine kat soo moytuwul dina am inondation nga xam ne waa dëkk ba dinañ mën a jël seen seen ay solution alors beneen beneen solution bi mooy ñu tabaxal leen ay infrastructure de protection nga xam ne bu inondation amee au moins dinañ xam ne ndox bi dina mën a jaar bi ba ba dem feneen mais actuellement Bakel ndox bi mënul dem fenn parce que amul benn infrastructure de de drainage. Hmm. waaw moo tax actuellement nii donc waa Bakel ñoom dañ taxaw seetaan rek lañ ci parce que amul beneen infrastructure actuellement les solutions qui ont été préconisées là-bas ay pompe rek jéem a pomper ndox bi yóbbu ko feneen. Hmm. parce que ndox bi ni muy infiltré woo dafa yéex trop par rapport à ndox bi ni muy hmm. parce que ndox maa ngi continué di ñëw ba tey. donc euh, voilà Euh, tey jii organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ban taxawaay la mën a am si jafe-jafe bi. voilà organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal donc li mu war a taxawee mooy lëkkaloog état du Sénégal pour jéem a xool gestion barrage bi barrage de Manantali pour xool euh, exactement nan lañ nan lañ pour mën a wàññi wàññi wàññi ndox bi hmm. voilà ensuite euh, état du Sénégal aussi jàppale les régions de Bakel. D'ailleurs, même, il y une partie qui a été sortie pour, pour nous mener d'appeler si inondation. Hmm. est-ce que est-ce que lu ni mel amaat mi ngi doog am euh, Sénégal wala daan na am crue fleuve Sénégal bi est-ce que daan na déborder comme ça. Euh, waaw li am nag li am nag euh, ren guleet muy am. Hmm, li am daan am. mais daanul woon daanul woon demee nii daal. Hmm, moo tax gars yi yàgg nañ koo wax scientifique yi yàgg nañ ko wax ne ne un jour ou l'autre dina am inondation boo xam ne nii. Mm. fleuve bi dina fees ba déborder dugg ci dëkk voilà loolu moo xew tey. parce que spécialistes yi yàggoon nañ di si alerter plusieurs fois. waaw waaw mais mosuñ de gis état bi réagir par rapport ak alerte yooyu. waaw effectivement scientifique yi yàgg nañ alerter par rapport à cette situation. Mm-hmm. mais nguur gi moom moo réagirul par rapport à ça état ñun Sénégal dañoo am problème anticipé mm-hmm. dañuy bàyyi ba dara taxaw ba pare ñu door wut ay solution donc yii nii yàgg nañ ko prédire yàgg nañ ko wax ne un jour l'autre fleuve bi dina déborder mm-hmm. donc loolu yi yëpp affaire yoo xam ne dañ ko waroon anticiper balaa moo am mais malheureusement mm-hmm. waaw ñu bëri di wax ni parce que xam nga ni presque dans un mois dañu war a dem ci ay élections euh, te gis nga région yooyu le est-ce que euh, fii ak un mois dina leen fekk vraiment ñu nekk ci condition yoo xam ne dinañ mën a bokk ci vote bi ba ñenn ñi ñu ngi laaj report élection yi yow ci sa gis-gis en tant que géologue est-ce que jàpp nga ni d'ici 17 novembre euh, foofu lépp dina mën a dellu à la situation normale ba ñoom ñu mën a participer ci vote bi. Euh, bon man nag pour ma mën a prononcé wu ci loolu day compliqué trop. parce que comme ni ma la ko expliqué nii. Hmm. li waral inondation yooyu foofu mooy taw bi te taw bi ren dafa mel ni dafa xaw a déborder hmm. parce que heure bi nii daan na fekk taw yi arrêté presque. waaw mais ren dafa déborder parce que même avant-hier tey sax hmm, Dakar taw ah Dakar oui. donc moo tax euh, taw bi mën naa continuer ci fii ak fin du mois tant que taw baa ngi continuer rek zone boobu day continuer di inondé waaw parce que amul infrastructure yooyu noonu yi nga xam ne moom moo a traiter ndox bi mu dem feneen kon kon tey jii élection yi moom waaw waaw dëgg yàlla mhm. xaw ma xaw ma xaw ma yan yan condition moo war a am ci pour ñu mën ko reporter waaw mais xam naa ñële moom pour ñu participer ci élection bi bu fekkee ne yi continue moom. Mhm. ça compliqué voilà. Euh, mooy rôle lu barrage Maram Tally euh, question rek. waaw barrage barrage bi nag bon. Mm. Mm. barrage hydroélectrique la. Mm. donc barrage boo xam ne day day day day day génne ko day produire courant électrique mais en même temps aussi day retenir une une grande partie de l'eau parce que barrage dañoo ndox bi dafa agsi ñu ñu baare léegi nag dañoo bàyyi benn couloir bu ndaw boo xam ne ndox bi fa la war a mën a jaar léegi nag bu ndox bi bëree donc ñoom mën nañ téye ndox bi pour ndox bi bañ a jàll parce que nañ xam ne ndox bi bu jàllee. fële man naa inondé ci kanam mais aussi buñ baaree ndox bi bu bëri aussi foofu tamit mën naa inondé fi ñu ko baaree man mën naa donc moo tax des fois dañuy uuf dañu ubbi ubbi euh, vanne yi bu ko defee ndox bi ndox bi mën a jàll looloo tax ma ne la barrage day jouer ay rôle yu bëri d' abord day réguler euh, le flux c' est à dire quantité bi di jàll ak quantité bi ñu retenir mais aussi en même temps ça day day day day génne courant rek kon euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax Amath Bodian ci leeral yi. ñuy fàttali ni Amath Bodian géologue nga ñu ngi lay remercier bu baax a baax.